salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi allazi hadaana li haada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah ahmaduhu subhanahu wa taala wa nastaciinuhu wa nastaghfiruh wa naudu billahi taala min sururi anfusina ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ñu ngi leen di ndokkeel doomu ndey ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala màggal ko kañ ko jullit si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaax suñu bopp ngeen gën di jullit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci jamonoom dëggantaan ndax ñu ngi ci àjjuma àjjuma lu waaye julli si yonent bi doyul doo ko utal lim naan dama koy def fukki yoon wala dama koy def cent fois wala dama koy def mille déedéet bu ko utal lim ginnaaw bi nga jàngee suratul kahfi ci bés bii tey àjjuma sa làmmiñ li ci gën lu ciy génn mooy julli si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax pourtant yeneen fan yeneen fan la de dañoo war a julli ci moom nag yonante bi jàngale ci sunnaam nit ki bu jullee suba mu julli si moom fukki yoon bu jullee timis mu julli ci moom fukki yoon say askaarul sabaawal sabaawal masa di nga julli ci moom tamit fukki yoon booy jeexal askaar yi mu ne ku def loolu ci semaine bi bisu àjjuma lañ koy gaaral ak jamono yi nga toogee di dégg Muhammad da ngay naan sallallahu alayhi wa sallam foo ko dégg ndax ki gën a nay mooy ki bu déggee turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du julli ci moom semaine bi durant yooyu nga julli yëpp ci àjjuma bi lañ ko koy gaaral moom mu ne comme ci lañ ko koy gaaral nag kon na ngeen góorgóorlu ba àjjuma bi na ngeen bëril li ngeen di julli ci man kon joxewul lim yee dafa joxe lim mu leer nañ yamal ci lim yooyu mu joxe boo jullee suba boo jullee timis booy def say askar sabaawal masa waaye àjjuma bi joxewul lim dafa ne na ngeen bëril li ngeen di julli ci man waaye da ngay gis ko waane mel ni mel ni man ne man tey damay julli ci yonent bi mille fois di la jéem a saxalal xadis boo xam ne ku julli si yoon bi saa salaam mille fois dañ lay goreel sawara yoon saa salaam lu mu jàngale ci julli ci moom dafa leer nañ bëri na nag ay xéewal yu bëri yu nekk ci julli si yoon bi sallallahu alayhi wa sallam waaye li ci wér mooy boo jullee ci yoon bi saa salaam benn yoon yàlla julli ci yow li nga xam ne mooy fukki yoon loolu moom wér na léegi nag yaay xool nag nombre li nga julli ci moom bu la neexee nga xam ne yàlla julli na ci yow lu ëpp loolu kon ñu ngi koy ñaax suñu bopp di leen ko ñaax ci bisu àjjuma bii. tey mawdu bi nag daanaka dañ ko bëggoon tënk ci benn feebar bu nekk ci doomu aadama moo tax ñuy ubbiloo saar bi nga xamante ne moom la ñu jeexal moom la ñu jeexal léegi di at tawba di saar bi yàlla tuddee tuub bu ñu demee dinañu xool ci aaya 62 astaghfirullah 66 al munafiquuna wal wal munafiqaatu baaduhum awliyaau baad wala baaduhum min baad yamuruuna bil munkar wa yanhawna anil maaruf foofu la ñu bëgg souligner tuuti rek nga gis ne bu ñu dawalee saar bi sax ba dem ba ci aaya bi nga xam ne moom mooy aaya quatre-vingt wala soixante-dix yàlla indi contraire naafeq yi indi ñi nga xam ne ñoo ko gëm wal muminuuna wal muminaatu baaduhum comme ni mu ko waxee ci naafeq yi awliyaa u baad ñoom lu ñuy def yamuruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkar kon contraire bi la te tey suñu jamono boo taxawee tey di digle lu baax di tere lu bon ay kano lañ lay visé te tuddee la tur bu nekk nag bi ci gën a yomb dañ koy dégg mooy terroriste la intégriste la waaye ki ñuy jël dëgëral ko ci kaw mooy ki nga xam ne moom ñaawteef lay digle di tere lu baax moo fi xew tey lu ëpp ci nit ñi jayaata lañ fi nekkee da ngay gis nit di ko jay di ko jay di ko jay ba yaakaar na ne bu asamaan si wàccee di la koy téye nga xool ci biiram fekk bokkaalekat bu mag la nañu dem rek si suñu sport yi ñu xam bu mel ni làmb bii ñu xam rek nga jël ab mbër di ko jay di ko jay te fekk yaramam yépp gàllaaj yëkkati ko teg ko ci kaw oustaz bi taxaw si minbar bi di waaraate delloo leen ci yàlla nga ne ko intégriste la loolu mooy aaya yi yàlla ju ñu wax bu ñu doon leeral munaafiquun doy na sëkk ñu dem ci li nga xam ne mooy suratul baqara nga xam ne yàlla dafa tàmbalee saar bi ñetti groupe ñaar ñi sawara lañ jëm yàlla ñu ci yàlla musal kenn ki mooy texe groupe bu njëkk bi ginnaaw bu mu ne bu mu ñu présenté téere bi ne zalikal kitaabu laa rayba fiihi lu mu ci teg hudal lil muttaqin téere bi njub la boo xam ne ñeen la ñu ragal yàlla mooy premier groupe bi ñi ragal yàlla mu joxe ay jikkoom seen jikko bu ñu ko doon lim de jël suñu temps bi yépp te dix minutes la ñu bëgg bayaan deuxième groupe bi waxul ci ñoom lu bëri waaye wax na seen tur inna lazina kafaru sawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum laa yuminuun mu wax li waral loolu xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim gishawa wala hum azabun alim wala wala hum azabun azim wala alim la azim waaw ñoom dinañ am mbugal bu tar waaye xoola troisième groupe bi borom feebar gu bon gi feebar bu bon la naafiq yàlla daf leen jéppi ba waxul seen tur almuttaqin ñi nga xam ne gëm nañ ko moom yàlla wax na seen tur de wax seen jikko macha allah allazina yuminuuna bilxayb wa yuqimuuna alsalaa wa mimma razaqnaahum yunfiquun wallazina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil axirati hum yuqinuun lu mu ci teg ulaayika ala hudan min rabbihim wa ulaayika humul muflixuun ñooñ ñooy ñu baax ni te ñoom ñooy dugg àjjana ëllëg ak jàmm waaye naafiq yi yàlla daf leen jéppi ba daf leen junj waaye aay yi ñu wax ci suuratu tawba moo leen leeral moo leen feeñal seen tur ay naafiq lañu feebaru naafiq moo nekk seen xol yàlla mu ne wa min annaas am na ci nit ñi man yaquulu dañuy wax aman naa de gëm nañu billaahi yàlla wa bil yawmil axir ak alaaxira waaye yàlla moo xam xoli li fay nekk yàlla nee na wa maa hum bi muminin gëmuñu dañuy sóob bu ñu ñëwee ci jullit ñi dañuy naan gëm nañu ànd ak yéen bu ñu demee ci yéeféeri ne leen yéen a fi nekk fi ngeen teg seen tànk nooy na tey looloo fi xew looloo fi xew kan ngay noonool mooy ki gëm yàlla kan ngay def xarit mooy ki ki weddi yàlla looloo xew te ki koy def boo ko joxoñee ne ko li ngay def nii du yëfu jullit yëfu naafeq la mu mere la doomu ndey mbokk jullit ñi naafeq mooy ki nga xam ne da lay signaler droite jàdd gauche mu signaler la gauche jàdd droite daraam justul yonent bi salaa salaam mandaree ko ci ay mandarga yoo xam ne xadis bi ñu miin ñun ñëpp mandargay munaafiq ayaatu munaafiq ñaata la wax ah salaasa mooy bu ñu miin mais am na benn xadis bu ñu sax ne set waaye nañ jël rek salaasa yi saa bu waxee rek day fen ñu baal ñu si terme bi moom naafiq jamais mu wax dëgg saa boo séqeeg moom kóllëre mu war la saa bu la joxee rendez-vous faussé la naa fekk benn rendez-vous rek lay respecté mooy rendez-vous boo xam ne da nga ko dig jox dara moom boobu moom du ko rate feebar bu bon la fi ñuy jeexalee mooy nit ki dañ lay fexee ba góorgóorlu génn ci feebar gu bon googu yondi saa salaam de jàngale ne benn remède boo xam ne waaye ak a jafe accomplir man de yaakaar naa bi ma dalee xàmmee ba léegi maa ngi koy essayé def mais su ma demee bay bëgg yegg rek il faut que am lu ma teqatal xaw ma seytaane lay doon xaw ma lu mu demee noonu waaye nekkul lu yomb des fois comme koor gi nii da ngay bëgg assurer weeru koor gi yëpp pour mën a respecter loolu am am am grade bi yonent bi wax noonu mu lay buccaloo ci feebar bi waaye faw am lu teqal di nga ko respecter weer bi yëpp waaye jour korité boo moytul fa nga yàqulee yonent bi nee na ku bugg ku bugg mucc ci feebaru naafiq nee na da ngay fexe. 40 jours yu tegaloo nga fekkee takbiratul ixram lan mooy takbiratul ixram mooy nga fekkee imam bi fu muy naan allahu akbar bu njëkk doo ko tardé loolu yaakaar naa nit ku koy def benn 40 jours di nga respecté dem jàkk te yàlla ñan la ñan la seddal mooy ñi dem jàkk dem katu jàkka yi lu mu leen tuddee mooy ñi gëm dëggantaan innama ya'mura masajid allah man amana billah 40 jours nga respecté fekkee ci ginnaaw imam bi takbiratul ihram mooy fi imam bi naan allahu akbar bu njëkk yow góorgóorlu nga ci 40 jours yi di ko doo ko tardé 40 jours yi nag mooy cinq prières yi da ciy ànd suba bi da nga koy fekkee ci ginnaaw imam bi du ne allahu akbar fekk yaa ngi waaxu du ñëw déedéet da ngay ne ci ginnaawam ñu iqaam sa kanam fu mu koy waxee nga ànd ndoog moom def ko suba tisbaar tàkkusaan timis gée 40 jours yonent bi nee na bu ko waaj respecté day am ñaari garaat ñaari garaat lay am bu njëkk bi mooy baraatun min an nifaaq dafay am garaatu naafiq boo xam ne yàlla da koy setal ci xolam moom dootul mënati nekk naafiq mucc na ci ñaareelu garaat bi mu am baraatun am garaat boo xam ne da koy tere du dem safara li neexul ak a neex ñun suñu yitte yëpp mooy bañ a dem safara dugg àjjana ku xamul rek mooy topp àdduna naafiq rek moo bëgg àdduna moom moo yaakaar ne àdduna fi la war a amee léppam te yàlla da koy wan exemple bu dul jeex jël ba jël waajuram bu góor wala mu jël waajuram bu jigéen wala mu jël doomam wala mu jël soxnaam di jël lu ko gën a jege mu koy gis nii te saa bu jëlee kooku dafay dem bàyyil ko lu mu ko joxoon yépp mais moom day jàpp ne lii moom du jeex bu ko neexee day dajale ay milliards pour moom milliards bi buy dem sax xëy na dañ koy def defaale ci biir bàmmeel bi bu dekkee moom lay géree xëy na malaaka yi parce que du doyal lu mu fu mu jekku denc ci ay compte banque am jàppee ne àdduna moom lépp àdduna la kon suñu yitte yépp dafa war a nekk ci xiirtal suñu bopp ci li ñuy dëkk teg ci yoonu siraatal mustaqim ba ñu dugg biir àjjana kon nañu moytu li nga xamante ne moom mooy lii di naafiq feebar la bu bon nekkul loo xam ne lu yàlla gërëm la buñ ci bugg buggee mucc nag nañu assuré lii yaakaar naa ko am formation 40 jours ngay fekkee julli mbooloo ci ginnaaw imam du la njëkk kàbbar kàbbar bu njëkk formation boobu boo ko amee dañu koy wax rek comme ci formation weeru koor bi ñu waxoon suñu waxtaanu bi passé nit ki bu góorgóorgóo weeru koor muy gis lu ko dagan nii mu di téye boppam ngallaawaay xanaa bu génnee weeru koor gi nag lu ko xaraam war na ko mën a moytu kon nit ki bu góorgóorloo ci 40 jours di fekkee ginnaaw imam dina bu xanaa kay bu ci jógee si loolu dina góorgóorlu nekk dem katu jàkka te bu nekkee dem katu jàkk nekk ku gëm te bu nekkee ku gëm mucc ci naafiq yàlla ñu yàlla xir ci boppam yàlla ñu yàlla sàmm yàlla ñu yàlla musal ci naafiq yàlla ñu yàlla dajaleeg li nga xam ne mooy guddi li bii nga xam ne mooy guddi lay xadr bu ñuy wër amaana mun na nekk guddi tey waaye yoon saa salam li mu jàngale rek mooy dañ ko seet ci fukki guddi yi rawatina ci guddi yu tool yi li ëpp ci borom xam-xam yi ne léeg-léeg guddi bu tool bi bu tombee guddi àjjuma mun na ko nekk waaye mun na ko bañ a nekk kon li wér rek mooy liñ doon junj rek fi ñu ko teg suñu tànk fii la buñ ko teggi bu subaa nañ fi dajawaat ginnaaw suba nañ fi dajawaat incha allah bañ nañu weer bi feeñ na ñu ngi séntu séntu bu njëkk normalement jeudi si ngoon buñ ko gisee dañuy xëy korité àjjuma buñ ko gisee lu ñu matar fanweer dañuy amaat rendez-vous buñ fi dajawaat mooy guddeelu fukk bi yàlla ñu yàlla may ñu fekkee yàlla may ñu wér ak dëgër ñu ngi yemale fii wax bi lépp loo xam ne jub na ñoo xam ne waxu yàlla moo jub moo leer moo rafet dañu bëgg ko leeral mu leer rafet li dëng ci wax ji ñu xam ne ñun ñii ñoo matadi yàlla ñu yàlla jéggal matadi gi aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum li saal muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim